nga xam ne nag euh, fii ci biir site bi doonatu fi gan ndax lii du njël benn émission ak moom tey nag ñu fas yéene waxtaan ci ponk yu am solo rawatina ci ñaan bi muy def jëmale ko ci jaam yàlla yi nga xam ne saa su nekk am nañ ci moom yaakaar ba di koy taataan si fii ci keppaaram dinañ wax lu doy waar ndax euh, am na loo xam ne dafay xew saa su nekk ci biir réew mi kooku mooy Serigne Moustapha Sarr ndax ni ma ko waxee saa su nekk nag euh, dinañ waxtaan ci ponk yi ma jot wax ci sama intro bi ma bàyyi la nga nuyoo mbokk askan wi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ñu ngi leen di ziar bu baax waa deux cent vingt et un people mhm. di gërëm bu baax seet si bi ngeen ñu seet si fii si koor gi di ñaan yàlla mu may ñu koor gu ñu nangu ci fii ci réew mi ak bitim réew ak mboolem ñu ñuy seetaan jërëjëf jërëjëf sëriñ Moustapha Sarr ñu ngi lay fay ginnaaw sën yooyu set yooyu tànd ak dal. Mm-hmm. am nañ ci kontaan ak mbégte bu baax. acca balaa maa dem nag euh, pour ñi nga xam ne numéro yi parfois euh, day doon jafe-jafe ci ñoom euh, méttiwut mu ngi noonu ci suufu baar d'écran bi doo ko soxlaa nga woo ko yaa ngi koy fekk fii di ñàgg nag aree bay Diallo saa boo ko woowee nag foofu lay nekkee acca fi may tàmbalee tey bokk na ci li ñu naan fay wax loolu bëgg naa tey ñu yaatal ci bu baax a baax. wax lu jafe la. waaye nag boo seetloo réew mi mboolem wax yu fi mës a jóg ñaare déggatoo ci dara yaa yaanaa bu sonk bi aji saar moo gën a rëy ci wax waaye fi mu ne nii dafa mel ni wax ji dafa nekk ci suuf c'est parce que sëriñ si liggéey na ci liggéey bu rëy boo xam ne ñi ngi koy def damay wax nag fay wax man dama ci am ñaari tegtal waxul lu mu rëy rëy loolu moom ñeme naa ci encaissé ba cent million parce que danaa fay wax ji moo tax hmm? da ngay jël bay wu ñuul rek laa soxla nga indil ma ko ak ñi séq wax ci na ma koy liggéeyee boo ko fekkee woon li ngay njëkk a wax da ngay remettre en cause naan waa ji jullit la wala du jullit fekk jullit la bu am ay tegtal kese nag parce que su ma daggee benn xaatim boo xam ne ñi may dégg dinañ ko xam muy xaatimu musallasu yi moom la ñuy ràbbalante ak lu ñuy wax musallasu samdaani mm-hmm. bu ñu ko daggee jël tur yi def ci jël téere bi sexal ko béy wu ñuul wi mm-hmm. escot sa gémmiñ gi rendi ko. Mm-hmm. béy wu ñuul duñ ko waxee benn melo la. benn melo waaw mm-hmm. bu ñuul kuk. buñ ko tëree nag dañuy gas pax mu rëy comme kuy rob niw rek bu ñu gasee pax mi ci biir pax mi am na xaatim buñ ciy bind. boo gasee suuf su njëkk si nga def ko si benn siwo beneen suuf bi nga def ko si beneen siwo boo gasee bind xaatim bi ci biir jël béy rob ko comme ni robee nit. jullee ko rob ko. jël suuf sële nag boo suulee ba pare nga def ko ci kaw bàmmeel bi mooy nekk noonu nga toog foofu nag def benn dog yaa xaabidu yaa raafiu am noo koy liggéeyee mm-hmm. wax jooju képp koo xam ne yow yaawuloo bopp mm-hmm. boo ci continuer rek di nga ci des wax façon fay wax boobu dafa am mm-hmm. amul benn nit bu ko mën a të man gisaguma ko man ay nguur ak lu mën a doon wax ji dana fay. liggéey bii nga wax nii ba du liggéey boo xamante nii liggéeyu. sacrifice lañ ko mën a woowee mais pas du du du du fétiche liggéey bu dagan la suñ mag ñi dañ ko daan liggéey. Mm-hmm. te ku ko weddi. Mm-hmm. waxuma nag nit ñi dem def ay toj-toj pour ñëw naan làq ma. waaye képp koo xam ne nag vraiment. Mm-hmm. dañ laa topp rek. su boobaa nag na nga jóg ci sa bopp boo ñëwee dañ la si jàppale. ñun daal dañ fee nekk pour aar nit ñi. Mhm. pour yërmande nit ñi parce que ki rey fukki nit kooku moo gën a soxla sax ku ko dimbale ki def toj-toj bu na weng nit ñëpp di ko wër bu ñu ko gisee rey ko ku ko mën a dimbale tamit wax dëgg yàlla ko baax nga. ndax yonent bi sallallahu alayhi def na loolu ci kaabu ibnu Zuhayrin kay yonent bi dem na ba ne kaabu neenal naa deretam fu ko gis nañ ko rey waaye bi kaabu solee benn mbubb ñëw sukk ci ronam ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu kaabu ibnu Zuhayr ñëwoon ci yow ne la jéggal ma ndax da ko jéggal mu ne ay bu kon ma jéggal ko yi mu mureeku ne ko man la kaabu yonent bi ne ko baal naa la kon yonent bi sallallahu alayhi moom lañ doon innama al aalimuuna wuraasu taaha waaye nag xirsuhu al ilmu duna xam-xam rek lañ doon ci yonent bi moo tax nañ yaatal mbir mi te bañ ko xatal te xettali képp ku nekk ci ay jafe-jafe même bu dee ab bandi sax nañ ko ñaanal nañ ko dimbale su demee ba pare ñu orienté ko jubbanti ko indiwaat ko ci société bi donc sëriñ dafa war a nekk koo xam ne mhm. da ngay nekk correcteur de la société nekk koo xam ne da ngay nekk koo xam ne da ngay jubbanti nit ñi mhm. ak lu nit waye di waye di waye di lu mu nekk nekk ab bandi rek mhm. boo ko tegee ci yoon ba pare rek nga door koo delloo nag waaye kuy lab nag mënoo ko jàngal xul wala waxat mënul nekk parce que moom boo yéexee mu dee dañ koy génne ba pare. Mm-hmm. ne bu ëllëgee booy labati boo waxee xuloo la <laughs> booy waaj a lab nga wax xuloo laa bu waa a mucc man loolu laa jàpp. tarkal lii di kaaraange nga xam ne ku ko amati war koo fàggandiku ndax jamono bi léegi moo ko laaj mën nga naa ci samay émission ba leen ne képp koo xam ne am nga ful la salaaya parce que nit ñi léegi te koo xam ne aw ma jot waaye kum jaral. ngir yàlla ñëwal ñu dem ci àll ba. ci àll ba rek. dinaa la dinaa la dinaa la samp pour wax la jox la gàllaaj yoo xam ne day samp nit maanaam pour nga të. Mhm. bii dañ koy sangoo ci ron soto ron gëng ron hiir ak dañuy gas paax nga dugg ci sangoo ko loolu ku ko def tëng ñaareel bi nag yi nga xam ne nii nag ñi nga xam ne mënuñoo dem foofu proposé naa leen ñaar. Mhm. benn bi ndomb la bu may wax kanzul maal mhm. maa koy liggéeyal sama bopp ndomb goo xam ne am na zulmaani nag wax dëgg yàlla am na ci loo xam ne dafa xaw ñuul moo gën a parce que bopp ñàngoor bu góor ak bu jigéen dañ koy wal def ko sunguf ak ñax moo xam ne day sax ci bàmmeel ñu wal ko def ko sunguf ak këru njullu kaata ñu wal ko def ko sunguf sunguf boobu mooy tëdd ci biir téere bi moom lañ ci suy wis ko ci am na 236 yaasin léegi nag ndomb googu daf lay aar mais daf lay ubbi moo la ñu tuddee kanzul <laughs> maal ndomb googu nag dafay xeex dafay samp nit maanaam koo xam ne danaa la man lu ma am mu dem mënumaa taxawal dara sama entreprise bi nangam boo ko takkee di nga gis changement ci sa dund bi ndomb googu nag dafa am càngat boo xam ne danga koy sangoo 14 jours <laughs> ba mu jeex moom mooy ànd ak meewu xar bi may wax meewu xar ngay jël nga ut bii yi am ci xaalis nañ ma baal waaye dix mille cinq mille deux mille mille francs téeméer ñu bind ci benn aaya wa in sarafu ba mu jeex du ma wax mu jeex ñu bind ko ci loolu noonu dañ koy lakk da ngay toog ma lakk ko koy lakk ci pot mu def dóom nga boole ko saafara bi ak meewum bëy mi nga di ko sango meewum xar mi bu fekkee amuloo alal man danaa ba sëriñ ma xam ne man xaw ma dara mais ku ko sangoo di nga am alal kenn mënu ci dara dara danga koy garder rek. ak noo koy amee man sama yoon ne aussi parce que yàlla moo koy def moo tax. xam nga benn kilifa ci réew mi dafa wax ne bi ma demee ba xam ne yàlla mooy joxe rek. Mhm. man laa noppalu man. moo tax daraay kenn yéematu ma ndax ki koy joxe mën na ko am na ko. Oh. ni mu koy defee boo ko xamoon yow yàlla ngay doon. Mhm. moom yàlla moo ko xam. allahu yaalamu haysu yajal risalatihi yàlla moo xam fi muy def ay mbiram. Mhm. te yàlla fa muy denc ay mbiram jaam du ko foog wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib la wax ci alquran mhm. wa man yattaqilaa ku ragal yàlla yarzuquhu dana ko wërsëgal moom yàlla min xaysu laa yaxtasib ci foo xam ne nii moom musu koo foog mhm. foo musul foog nag loolu mooy point stratégie yàlla di joxe nit moo tax bul gis nit mu yor alara nga ne dóor la sàcc la fen kat la faramason la fekk du yooyu yàlla mhm. yàllaa ko joxe ci buntu wërsëg boo xam ne yow joxewul la foofu foo nit ñi nangulante loolu mbóot nag mën na loolu mhm. mën nga sangu fii génn rek benn màggatam tubaab topp la jël testament def ko sa tur mhm. ñeenti semaine mu dee ñu ne alal jëpp yaa ko moom mais loolu mënta ne mën nga toog sangu benn joueur topp la ne danga maa neex benn jigéen milliardaire topp la danga maa neex lu si nit man loolu lu ko si man man lu ko neex mu jox la su boobaa kooku dana am force nañ ko jiiñ nag lu ne faramason laak bandi laak mhm. tiriyaa laak yàlla moo xam kooku lan la te nag ñooñ di la ko jiiñ fexeel rek ba koo ci xam rek may ko cent ñaari yoon boo ko commencé ñaari yoon fukki fan yu njëkk yi ci koor gi cent mille fukki yi ci topp cent fukki yi mujj cent mille dana invité conférence de presse nit ñëpp na leen waa jii du nit moo tax nit ñi dara xaalis rek lañ gëm. di lay taggal say ba mu ngoog jërëjëf sànq dégg naa nga wax euh, ba ci lu bokk ci ndombo ndombo yooyu sax ci laay dugg maam luñ ci yaatal ndax dafa mel ni am na yeneen yoo xam ne yàlla dénk la ko ci mbirum ndombo. ndombo dafa bëri ay affaire mhm. man amoon naa ñaari at yi bu ngeen déggoon amoon na coow lu fi amoon si temps Balla Gaye ak Modou Lo man mii woon. parce que dama amoon ndombo goo xam ne dama ko daan defal ay nit yoo xam ne dañ daan bàyyeekoo itali di dem Canada. ak ñoo xam ne dañu bàyyi dugg France. Mhm. ak ñuy bàyyi ko Maroc di dem Espagne. Mhm. que ndomb gi moom boo ko takkee mën a xew yow moom doo dugg ndox mi. parce que ndomb gi du du du diig moom ndomb gi moom du dugg ci ndox maanaam kon ku ko takk foo nekk du diig. moom doo ko def il faut dem waaye dee moom doo ko def kooku c'est garanti mhm. dafa xaw a naqaree defar parce que teen yu të fas la benn fas rek la. buumi saako yooyu ñu ñëwee saako yi nii moom la ñuy jël fas ko mais juróom-ñaari teen yu të teen boo dugg fas benn. ndomb góor lañ lay jox nga ëwlu ko takk ko ñaari mbakkal nga takk ko nga seet nag man maa ngi fii senegal ñëpp xam nañ ma sama at man du may tëju man déwuma fen non am na xam nga tamit <laughs> xam tamit wax dëgg yàlla nit man ngaa wax ne maa ngi takki jabar waaye boo demee doo wax la nga koy doyee yooyu ñëpp ko xam rek nopp ci ñëpp xam ne ku takk jabar bu guddi jotee li ngeen di def kenn du koy wax fenn <laughs> da ngeen noppi noonu rek voilà loolu mooy mbërëm mbóot Mhm. koo dégg muy wax mbóot nii rek xamal na yorut mbóot mbóot kenn du ko wax mbóot hmm. <laughs> mbóot kenn du ko wax benn waaye daf ne asirru dañ ne ko mbóot mooy lan mu ne asirru mbóot fi sirri mi ngi ci mbóot mbóot a ngi ci mbóot loolu rek la wax sëñ Fall lu xawma sëñ Saliou ku ko ci wax dafa amoon ma mhm. dañ ko mës a sonal ci secret secret mu ñëw ne leen bind leen secret ñu bind mu ne leen maas leen ko ci kaw ñu bind maas ci kaw muy sàkkara mu ne waaw mu ngóob waaw sàkkara kenn du ko génne waay mooy sàkkara moo tax kenn du ko wax ci mbooloo koo dégg muy tarare ab sëriñ naan kërëng kërëng kërëng am na lu des ci mbir mi ñu koy rek baax parce que jotee ci noonu ci internet cliquer rek jot mbóodi noonu benn borom xam-xam dafa digal taalibeem ne ko laa tastaamil wala taqra ay shay'in ilaa wa ana azantuka fiihi bul jëfee wala nga sangoo wala nga bind dara benn mbóot boo dégg ci ab tele wala nga fekk ko ci ab kaye dem di ko jëfandikoo bu ko mos a def. ndax lan daa wóorul. daa parce que sëriñ si dañoo xañaan te dañoo soxor te dañoo mën a nëbb duñu la wax mukk li ci nekk moo tax il faut nit ñi tey dégg naa benn sëriñ mu a nanga nang isa jaago ko nangam isa jaago ngay jàng mën na laa def loo choc téeméer yoon. parce que waxul la li ci li ci nekk dëgg mboot soo ko bëggee hmm. da jaxasoo ñi ko am wéet ak ñoom ñu laaya la biir jox la ko loolu laa bëgg mu leer naa ñu ni nga xam ko hmm. kon mu ngoog kon mu ngoog dégg nga yenn wax yi moom euh, dégg na laaj ku moytuwut yenn cangat yi sëriñ si di joxe ah, dinañ la mos a sang boog kon <laughs> nañuy moytu yenn yi bu baax a baax acca dama ñëw ci cangat bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey hmm. cangat bi may liggéey dafa nekk ca ngat goo xam ne képp koo xam ne dañ laa bëgg a la ne dañ lay licencier wala dañ lay dàq wala ngay liggéey ci barab nga ragal ñu duñ la renouveler sa contrat genre yooyu nag laa wax maa ngi leen di ñaan ñu ñëw ci man ma dimbale leen ak ku mën a doon boo ko jëfandikoo yàlla dana la dimbale te loolu yàlla moo koy maye te wax dëgg yàlla ba léegi mu ñu koy may ba léegi nangoo ko d'accord mhm. càngat googu nag daa xaw a metti wante nag ñun ñëpp ay jullit lañ mbóot kenn mënu koo jënd. ndax mbóot daf lay defar. Mhm. defar goo xam ne masalan boo ma joxoon un million man ma sang la nga ubbeeku un million bi man bët bu set day jeex te yow bët bu set da nga yokk moo tax bul yéem li nga joxe yéemal rek liñ la defal ak barke bi ci nekk. loolu mooy alxuraan nee na bàyyi leen di jëndee aaya yàlla yi ay njëg yu ndaw. samanan xalilan la wax amul nag contexte ci lii waaye dama bëgg a xamal ne alxuraan ak ñaan yàlla du loo xam ne nit mën na koo jënd parce que ay xadis daf ci wàcc mhm. adduaa u silaaxul mumin la yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam ñaan mooy ngàndaayu jullit mhm. ngàndaay nag arme dafa cher si jamono ji yow xam nga ko dafa cher soo ko weddee nag demal nga bëgg a jënd benn char de combat nga seet. comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen balaa maa jeexal nag daam foo xam ne dinaa fa dugg ndax euh, dafa doon wax joo xam ne nu nekk nit ñi ñu ngi ko ni interprété di ko ni jàngate nan nga euh, déggee ak nan nga mën a jàngate wax ji Ahmed Khalifa Niass wax. waaw man am na ci loo xam ne dinaa ko rafetlu parce que xam-xam ay référence la ak ay text ay documentation la maanaam nekkul xel. xel am na ci parti mais c'est pour comprendre xel lu muy jëriñ c'est pour comprendre et réfléchir mais na xam-xam documentation la ak texte donc alxuraan ak sunna amul lu ñuy inventé le Coran ay révélé interprété na ko mu yonent bi ci xadis ak sunna li des nag mooy nga dem yëri téere yi xam la ci nekk mais nag dañu nekk ci société boo xam ne dañu nekk ci formation ci diine boo xam ne ñun paree guñu yaa ngi may dégg donc loolu moo tax soo nekkee di jàngale ci société boobu il faut nga xam yan méthode pédagogique ngay utiliser. Mhm. mais koo xam ne nii yëggagul primaire yëggagul bac amagul bac. Mhm. amagul BFM nga ñëw di ko indil ay hypothèse wala ay théorème yoo xam ni. Mhm. boo ko ko bëccee rek mën na ko kéefarloo ci saa si. moo tax mbir mi dafa laaj organisation ñu recadré waat suñu méthode de communication. muy ameen xalifa Niass am na xam-xam mais na xoolaat ni muy communiquer ak société sénégalaise. d'accord ci dëgg mhm. ñëpp mën nañ ko wax. mais am na dëgg boo xam ne yaakaar naa ne am na nuñ ko war a waxee dafa am benn waay dafa bëggoon benn buur mu bëgg porte parole benn bés. Mhm. mu ne oo oh, leen ma borom xam-xam mu ñëw mu nettali benn gént mu ne leen damaa gént. nangam ak nangam ak nangam benn borom xam-xam daal di nag mu ne ko yow loolu lan la mu ne ko loolu de moom bu dee moom la kon yow da ngay gàtt fan mu ne rey leen ko. ñu rey ko mu indi keneen mu laaj ko mu ne ko ah loolu de bu dee moom la xam naa da doo gudd fan lool waaye xëy na daal da nga dund ba ci kanam mu rey mu ne rey leen ko ba mu ooyee nag ki am xikma te loolu la alquran wa wa daaen ilallaahi bi bi iznihi wa daaen ilallaahi déede wadu ila sabili rabbika mhm. bil xikmati wal mawizati alxasana loolu la ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga woote avec éloquence mhm. wal mawizati alxasanati ak nga teg ko ci logique boo xam ne doo heurtelee conscience mhm. mu oo keneen mu ñëw mu ne ko buur li nga gént bu dee dëgg la mu ne ah mu ne ko ool réew mi yëpp duma ko wax fii yow kenn ñëpp ñëw baas ñu toog mu ne tegal ma gàngunaay ak or ñu teg mu toog mu ne ko buur wax leen tàccu leen ñu tàcc mu ne buur yaa baax mu ne ko ah mu ne ko buur mboolem sa doomi bàyyi ak sa doomi ndey yaa ciy nekk mag yaa ciy gën a nekk mag mhm. mu ne ko yow laa doon wër pour la porte parole suñu kilifa la suñu lépp la waaye na xam ne société sénégalaise tamit am na leneen lu ñu gën a soxla par rapport ak li muy wax nii quoi. Mhm. loolu na ko xam moom. parce que moom na bàyyi xel ne ay waajuram bàyyil nañ ko ay dëkki àll yoo xam ne ñoo moo ko sancoon sos ko. Mhm. na fa yóbbu courant yóbbu fa ndox dimbali nit ñi foofa ñu am lu ñu liggéey. investir ci wàllu mbay mi ci côté àll bi Saalum foofu parce que doomu Saalum la ñoo ko judd la ñoo ko yarule ñoo ko màggale. Mhm. loolu kenn mënu koo weddi kon na ñëw Saalum dimbale waa Saalum def fa ay descente gën a yaatal loolu lañ gën a soxla si moom te mu moytu jéeg yii nga xam ne ñoom lañ ko wërale ñoom ñëpp ñu teg seeni greffage wit na laa ak lu ma xamul nga xam ne xamuñ ci diine dara jégewuñ sax lijjanti diine a lakka sumtu wa bika amantu sax boo leen ko doon wax loo da ngay dégg ñu prononcé ko noo xam da nga yaakaar ni ay chinois lañ mm-hmm. donc ñooñu amuñ voix ci diine li sonal lislaam nag mooy ay nit ñoo xam ne dañoo taxaw temm di wax ci turu diine. te lislaam digalul leen mayul leen digal ngembut leen joxul leen ism loolu bokk na ci liy yàq société sénégalaise. da ngay taseeg nit sax maanaam benn oustaz donc oustaz dañoo dem ba minimiser ko mel ni oustaz te fekk oustaz baat bi si boobam lu muy firi mooy professeur mooy docteur. mooy cadre mooy koo xam ne dafa nekk un spécialiste. Mm-hmm. mais oustaz dem nañ ba Sénégal oustaz bi nee na saaga la. xas la stigmatisation la donc loolu laa amul lu ma ci répondre donc loolu nag man maa ko wax personnellement man la engage parce que sama maam la am naa droit wax ko suma xalaat te nit ku yaatu la ku ubbeeku la amul problème ci loolu donc xamante naa ak staff am si ñu bëri moo tax ma wax loolu est-ce xam naa ne dina ci bàyyi xel waaw est que du bu waxee ñenn ñi dar gémmañ seen euh, que du lim leen xaw a ëpp mais li mu wax su ko ñenn xam ne dëgg la xanaa dafa metti rek modestie dafa am solo doomu adama mhm. ak loo mën a xam njuba ko ëpp solo ak loo mën a xam fexe nit ñi jub moo ko ëpp solo ah, buñ tegoon njub a xam-xam tànnal njub bàyyi xam-xam ah, moom jubul non waxuma loolu dama ne mhm. moom lu mu mën a wax mhm. mu fexe ba nit ñi jub moo ëpp solo loolu que mu fexe ba nit ñi di xëccoo ko ŋaayoo ko réyoo di indi ay problème xam nga mag ñi fekk nañ fi loo xam ne dafa lënt ci diine mhm. waaye da dafa am ay méthode yuñ koy dindee xam nga dëkk bi dañoo donn ak ceddo goo xam ne dafa bëri luñ njaxas ci lislaam loo xam ne bokk ci wante loolu nag doo jékki-jékki rek xëy rek na leen nañ ko ba tey mais dafay dem par étape nit ñi di dem di gën a moderniser wu seen xel yi di gën a yokk seen gëstu di gën a yokk ñuy gën di avance mais soo bëggee avancer loo xel yi te moyens yi mustalahaat yi nga xam ne euh, maanaam moyens yi nga xam ne ñoo war a yóbbaale loolu noonu nekku fi rek da ngay indi ay problème mooy li Macky Sall di def nii rek jàpp ay tali di tabax jàpp ay stade lu nekk mu ngi koy def te xamul ne ba léegi nit ñi amaguñ luñ lekk ak luñ naan. tali yi kenn mënu koo lekk. Mhm. bu xiif baa ngi bëgg a rey nit ñi. na dimbale nit ñi am luñ lekk lu tax du investir si lekk ak naan mais investissement moom mooy defar naa pont bii defar naa tali bi defar naa lii loolu mooy investissement investissement mooy nit ñi lekk ba suur naan ba màndi di faju jërëjëf man loolu laa wax. am na solo jërëjëf sëñ Moustapha waaw kontaan nañ bu baax si émission bi mhm. vraiment di ñaan seen sit bi yàlla yëkkati ko te yàlla dana ko yëkkati sax loolu laa jàpp parce que yéen a ngi feeñal lu am solo loo xam ne waaye sa Indonésie wala sa Malaisie wala sa Accra bëgg a gis ku ko gindi te mënu koo am te ngeen jote foofu donc loxo bu gudd googu laa wax ne maa ngi wax dem di tooñ ay booy ma ne leen dafa am yenn xeetu bayre yoo xam ne nii ku koy wër ci ab sëriñ dootoo ko gis ku ko bëgg da ngay dem ci site internet wala nga dem ci internet média rek fa la nekk parce que tur wa soppeeku na jëm mu nekk télé bi jàkkaaloo yow loolu bayre la waaye bayre bi nga ñu utti sëriñ mooy bayre boo xam ne nag gannaaw bu la nit ñi seetaanee ba pare <laughs> dinañ am cofeel ci yow jëflante ak loolu moo war a am yàlla na yàlla defal leen loolu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu